asalaamaaleykum eh, ñu sant yàlla bu baax man maay Mbacke Gadj nekk porte parole ci di sëriñ Dame Gadj xam ne tey mooy xalifa Baye Gadj ca Jolof mboolem toppam Baye Gadj ñëpp ci ginnaawam la nekk di leen wax ne ñu ngi fii ci Medina ci weeru gàmmu bi ci bisab gàmmu bi di waajal gàmmu gi ci kër Baye Gadj gi xam ne gi bañes moko seddon wa séddoon manam ci lamiñ seigne dam eh, seigne dam mi ngi gërëm talib yi nga xamni def nañ jëtt ju mag ba kër gi nga xamne mom la bañes joxone bay Gaaj tay ji tay kër gi ñu ngi def reception bi le 24 août 2019 ci kanam Cheikh may ibrahim Niass ak tim imam Cheikh Tidiane alim Cissé lolu fatali rek moy Cheikh Ahmed Tidiane mooy ko joxone ndigal ban teg pose premier pierre bi kon tey bu fi taal yëpp dajee ñëw di ziare si mi leen wax na ne amul sikk ne kenn ku nekk ci yéen dana dem ànd ak yokkute ci ziare ak ci baatin ndax Baye wax na ne ziara mooy firi ziara mooy firi doleeku te wax na ne tamit ne ziara moom du ñàkk nangu mukk kii ziara su matee kii ziara matut yàlla maanaam kii maanaam kii maanaam kii ziara matut kii ziara mat yàlla nangu ko kii ziara su matut ki muy ziare mat yàlla nangu ko ki nga xam ne ki tim ni mooy ziare matul ki ziare matul yàlla ci matam nga mu nangu ko kon mi wax ne ñi fi teew ñëpp amul benn sikk ne ni ko Baye Gaye daan moom mënu dara waaye ki nga xam kii moom la ànd ak muy Mawlana Cheikh mën na lépp waaye sëñ daam mi wax ne moom ti mënu dara waaye Baye Gaye mi jaama Baye mën na lépp kon amul sikk ne ziar bi yàlla dana ko nangu ziar bi tombe gàmmu Medina gi mooy loolu kon beneen dooleeku la ci beneen dooleel mooy lu lépp tim ba léegi rek ni baay waxoon na café du siha bi fi tarixa naaha wa kulum bi jës bi naa la mu naaha moonaam bàyyi fegal na taalib bépp coono taalib bi ku ci gën a néew yi ku ci mu ndaw rek am na li nga xam ne mooy càkkutéefam bàyyi gaa dafa yombal ndax lii taarix la mooy at mu jot bu ñu def gàmmu dañ ciy profité ndax taalibe ci li ñuy ñëw su ko defee ole lieu ñi ñëw benn benn di ziare sëriñ bi daje ñu ñu ziare sëriñ bi loolu mooy li nga xam lii mooy sabab jotaay bi ndax aljaami yu rahma su ko defee mu xool taalibe yi bég taalibe yi xool ko bég te loolu moo waral ziar bi di demee at mu jot ni muy demee nii mooy baygaaj dafa noppal taalibe mi ndax war nañ ko dogal benn bés boo xam ne dañuy dëgg ñu ñëpp suñu paas dem Jolof ziare ji ko waaye waxtu ndaje fii ci gàmmu mu yomb la ñuy ziare ko ci bisu gàmmu bi su paree guddi gi nag ñu ñuy bokk dund ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ànd ak ki nga xam ne mooy alxalifa mu Cheikh Matiyaani Ibrahima yi nga xam ne tey mi ngi bitim réew yàlla mu dikk ci làmmiñam sëriñ daam ak mboolem taalib baygaay yëpp ñu ngi ñaan yàlla yàlla delloo ci jàmm mu nekk ci kanam ki nga xam ne kii mooy ay rakam ak magam yaa Fatimata Zahra ak mbooleem ay jarbaatam nga xam ne tey imam bi mooy cheikh imam Cheikh Tidiane Aliou Cissé ak mbooleem ñi nga xam ne ñi ñoo nekk Médine yëpp ay ay sët ay sësaat loolu mooy li nga xam ne mooy sabab ziara bi fii ci Médina Baye kaddu gi ñu mooy di gërëm vraiment ki nga xam ne mooy Amadou Bekaay ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la ànd ak liggéey ci li nga xam ne mooy seen web bi di wax na rek ne ñu ngi leen di gërëm di leen sant ndaxte suñ kàddu tey dana jote fu nekk te yàlla ak yéen la yal na yàlla ak seen maqaama ngeen di am seen télévision bopp ci barke Baye ak barke Baye Diagne di wax ne li ngeen di bëgg mi ngi ci kanam te amul sikk ne danañ ci jot ndax Baye wax na ne araakum mulukal ardi laa shakka fashado adunya kal anami tabasaro te loolu amul benn sikk ne ñoo nekk buuri suuf te di jamono ngi ñëw lépp seen loxo lay mujj li am solo rek mooy jàng leen jub leen te xam ne lépp seen loxo lay mujj ama zalik ala bi wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu